asalaamualeykum askanu Sénégal askanu Thiès maa ngi nuyu les adjoints au maire yi nga xamante ni def na nañu déplacement ñoo fekke si suñu conférence de presse bi nuyu les président de commission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 li waral daje bi tey benn ponk rekk la moo ci ëpp solo ndax jamono jii mooy yitte waa réew mi yépp rawatina ñun ñi nga xamante ni ñoo dëkkee Thiès muy tey kon dama woote conférence de presse bi ngir waxtaan ci li ñuy tuddee mbuurkat le 29 avril bi ñu weesu président de la république Bassirou Diomaye fay dafa jël benn décision de suspension des procédures domaniales et foncière ci yenn zone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 ñun ñuy alerte may wax di répéter ni les maires qui sont là ñi jàppaleen ay maires yu opposition n'ont été ni de près ni de loin impliqués dans la gestion muy mburkat muy nouvelle ville kenn impliqué wul les maires pourtant on avait amoon nañ ci xalaat ci lu mburkaat mën na na jariñ bu baax a baax porté woon naa un projet ak ñoom ni leen mburkaat de ginnaaw bu ñu régulariser ñi ñu war a régulariser jox leen seen i këy waaye la fay suuf Thiès war na cee mën a gis boppam war na mën a jàppale ñu régulariser quartier bu mel ni Kër Maam El war na mën a permettre ñu régulariser quartier yu mel ni Mbambara Pencim Ali Nguer Daaru Salaam ñu restructurer quartier yooyu ndax quartier yooyu mënoo ko restructurer lu dul da ngay loger ay ay ay ay ay ay ay famille ak ay projet yoo xamante ni ville de Thiès ak yeneen mairie communes yi porté nañ ko ma wax ci benn boo xamante ni amul fu ma ko jooyu muy zone économique local pourquoi zone économique j'ai dit monsieur ministre ñun ay maire la da ngay dem États-Unis da ngay dem France da ngay recevoir l'ambassadeur de la Russie de la Chine am ay hommes d'affaires yoo xamante ni dañu am ay projet pour Thiès ci industrialisation bëgg investir mën a ñëw Thiès man fi tabax industrie boo xam doomu Thiès dinañ ci gis seen bopp mais ñooñu suñ ñëwee fan nga ban site nga leen di jox mais parce que amuloo ko en tant que maire ma ko su ngeen ñu jàppale woon ñu am zone économique locale tey maa ngi nii jëm Turquie ci benn voyage incha allah mais soo demee homme d'affaires yooyu bu ñu bëggee investir Thiès su ñu ñëwee mën nga leen a jàppale ñu toog tabax loo xamante ni doomu Thiès dinañ ci mën a gis seen bopp ñii nii jox nañu ville de Thiès cent vingt terrain cent vingt parcelles mais cent vingt parcelles yooyu man maa ko ci wax avant kenn di ko wax man rek may maire buy communiquer chaque jour ci li ñu jox maire yi wala li ñu jox maire de ville de Thiès amul lu ñuy nëbb li ñu yor moomuñu ko askan bi moo ko yor gouverneur Mbeng impôt et domaine bi ñu joxee maire de ville de Thiès terrain la ñu jëkk a jox ngir ñu bokk ko ak nord ak est yu bokk rek cinq yu ouest yu Fandène ainsi de suite les communes concernées bureau municipal bi ñu ngi fii xam na ni ñëw naa ma informer la bureau municipal ni 120 terrain de la ñu ci jox ñun waa Thiès en tout cas institution bi ma yóbbu ko conseil municipal terrain yooyu nekk na fa lu ëpp presque at am na sax ñu demoon ba ma ciy meree ni maire xanaa moom bu bëggul am na ñu bëgg waxtaan ak ñenn ñu am expérience ci dëkk bi nekk ci conseil municipal wala bureau monsieur le maire terrain yooyu maire bi jël ko ak ñàkk ko jël moo moo ñooyam li xew xew na ca am nañu ko soxla ca ay la yéwén wax nañ dëgg am nañu ko soxla ginnaaw bi ñu génne noor bi coow li bëree génne est ni 120 terrain yooyu jox nañ ko mairie de ville de Thiès man yàlla dafa def lépp lu may doxal ci conseil municipal bi damay dem ci ci conseil municipal bi ma rendre compte leen de lii de moo fi am lii de moo fi promesse lii de moo fi génn ak lu mu mënti xew dossier bu mu mënti doon ñenn mën nañu reprocher pour pourquoi mu jox conseil municipal conseillers yi yi nekk ci conseil municipal bi ay Thiessois lañ que je sache amuñu salaire amuñu indemnité mënoon nañ ko jox ñeneen mais je n'ai aucun regret aucun regret aucun je dis bien jox un conseil municipal bu mel ni Mame Diarra Sylla nga xamante ku ko xam xam na ni ci néew doole la nekk jëkkëram génn àddu ku ko xam xam ni ci néew doole jëkkëram nekk dès lors que le conseil municipal nee na ñoom ci boppam nañ leen jox képp ku ci bëgg toute obédience confondue xaw ma ko nekk pouvoir xaw ma ko nekkul pouvoir xaw ma ko nekk mairie Thiès Est xaw ku nekk mairie Thiès Nord xaw ma ku nekk fii man li ma xam c'est un conseil municipal bëgg na jox nañ ko waxuma ñu d'accord ak man ak ñàkk d'accord waxuma lool de mais dama koy assumer waxuma ni je suis propre je ne suis pas un ange mais si vous voulez un homme de bonne volonté je suis un homme de bonne volonté si vous voulez des gens il faut monter au ciel cent vingt yooyu dafa am ñu nekk ci suñu administration bi yore liggéey bi mën nañoo ba a bari wax de mais yore liggéey bi ñenn ñi nekk feera ñenn ñi suba ak ngoon ñi ngi ci terrain bi def liggéey bu am solo ma tudd ci ko mel ni mbay Ndiaye li muy liggéey ci éclairage public amul benn quartier bu ko xamul suba ak ngoon guddi ak bëccëg foofu responsabilité bi partagé wu ma ko ak kenn waxuma ñu d'accord ak man ñi nekk ci réseaux sociaux yi waxuma ñuy wut bës ma ay lanceur lañu xaw ma lu ñu mën mënti doon xaw ma dañuy positionné ñoo xam am nañ ci droit mais responsabilité assumer ko dama koy assumé ba mu ñu total responsabilité xalaat ñooñu mais du loolu rek yamu fi je maire de cette ville lu lépp laa mën a wax ay chefs religieux yu mag yoo xam dañu ne ci dëkk bi yaakaar ni ci histoire Thiès kenn mësu leen a considéré kenn mësu leen a boole ci dal te ñi ay kilifa yoo xam bu ma leen tuddoon yore ay jàkka yoo xam wala ñu liggéey ci diine ji liggéey ju rëy rëy rëy chaque jour ñu ñëw monsieur le ma xalaat ñooñu muy église di tarixa di diine. wax xam naa ko bu baax moo tax keroog bi ñu ñëwee conseil municipal am ñuy wax Tata Hélène jël parole ni ah man de mën na maa wax au nom de l'église li monsieur le maire def pour l'église xaw ma nag kaneen da koy gërëm bu baax a baax ndax moom am na dossier yu ñu géré di ko gërëm bu baax a baax ku am taxawaay la ku am expérience mais ko ñemee aussi assumer position ci dëgg rek ak yeneen yoo xamante ni responsabilité bi ma yor mënuma may manaan nangam ak nangam mais muy ay tarixa muy ay chef religieux wala muy association religieuse yoo xamante ni liggéey nañ ci dëkk bi loo xamante ni bu dee dañoo am problème mu siège bu ñu am bu ñu ñëwee gis monsieur le maire monsieur le maire dina ci taxaw lu mu mën waxuma il a raison waxuma il n'a pas raison waaye yàlla def na man maay maire responsabilité jël décision man ci sama ndodd la ne dama koy jël waxuma ni duma def faute duma def erreur lépp lu ma def noonu la lépp lu ma wax noonu la man dama weex tàll musuma bàkkaar déedéet ma dàq jum ñépp waaye bu fekkee nit ku am yéene ci Cees ngeen di wër kenn ñi ni bu fekkee nag malaaka mu set wi ci ngeen di yéeg leen ci kaw asamaan seeti malaaka yooyu ñu yor ay junni junni demande Cees waay ba tey chaque jour amul jour bu ñu dul recevoir ay demande de passe bés bu yàlla sàkk ñu ngi recevoir sama chef de cabinet dama ko ni demande parcelle bu ñëw nañ ko enregistré duñ sànni benn demande de parcelle bu ñëw mi ngi fi junni Cees waay ku ci nekk boo déggee maire def émission wax mbuurkaat rek nga daw indice li ñu ci mën a satisfaire ñu satisfaire ko voilà loolu mooy cent vingt terrain parcelle am benn waay mu ni cent vingt yooyu du conseil municipal bi dafa juum dafa juum waaye nag baabakar Diop bu bëggoon quota am ko loolu mat naa ko leeral ndax bu posé wul woon débat bi du mu yëg si foofu man Babacar Diop bu fekkoon bëgg naa personnellement quota ci mbuurkat ma dem jël sama quota ndax proposé nañ ma ko loolu mooy dëkk ca lu weesu quota yaakaar naa ni mënuma lim ñaata yoon lañ ma wax indil sa carte d'identité ak ñi nga xam waaye awma benn parcelle ci mbuurkat soxla naa parcelle de waaye la ma waxoon ci émission bi kër gi ma fas yéene dëkk man ak sama njaboot yàlla na ma yàlla dimbali ma tabax ko ci sama ñaq kon quota boobu waajoo ju di wax aka maa am quota mais maa ko suur maa ko suur yem ci li ma mën a justifier cent vingt yi nga xamante ni jox nañ ko conseil de ville ma ñëw ci conseil de ville ni lii la laneen lu ci génnaatoon loo xam ne mën naa ko indi ci conseil de ville dinaa ko fi indi waxtaan ak ñoom yaakaar naa ni loolu laa mën a wax ci loolu suñu yitte yépp nekk au service de Thiès nekk au service de l'intérêt général nekk au service de la république loolu moo tax keroog ba ma dajee ak le prisonnier politique Bassirou Diomaye fay futur président de la république du Sénégal waxtaanuñu fa ludul cees Thiès cees rek Sénégal Sénégal Sénégal rek la ñu waxtaan ci présidentiel il n'a jamais été question de poste Thiès lañ ko waxtaanee. moo tax bi mu fi ñëwee Thiès lañu wax kon en tant que maire mënuma lu dul jàppale le président de la république ci dossier bi taxaw ci wetam ci wàllu politique ci wàllu communication ci wàllu engagement ba néew gi doole yi jot seen àq ba population yi jot seen àq parce que y a trop d'injustice dans ce pays waaye di ko ñaan yaakaar ni jël na mesure bi kon dinañu orienté waat doxalin bi nga xamante ni doxaleen nañ ko Mbourkat ak Nouvelle Ville que li nga xam ne mooy intérêt population yu Thiès li nga xamante ni mooy intérêt ville de Thiès ak commune yi fi ne nañu ko préserver ñu jàppale leen parce que projet yi ñu am mu mel ni gare des gros porteurs projet yi ñu mel am lu mel ni beneen hôpital lu mel ni ay cimetière lu mel ni wax naa ko zone économique local lu mel ni ñi jàppale yenn ñi nga xamante ni ay victimes lañu woon chaque année ci inondation ngent ñu jàppale leen ñooñu gis ci seen bopp Thiès gis ci seen boppam ndax cees dafa war a gis boppam ci ci mburkat kon askanu Cees di góor ak jigéen li ma mën a yeesal rekk mooy lu mu metti metti na leen wóor ni mën ngeen a ci seen doom di maire de la ville de Thiès Babacar Diop merci beaucoup